que le commissariat scientifique en charge des infrastructures et des transports du parti mun na ko def c' est des considérations yoo xam ne dañ ko war a def pour ñu xam ne fan lañ mën a intervenir kon l' état est plus fort parce que moo am contrainte am na ay militants yoo xam ne dañoo jàpp ne reddition des comptes dafa war a am mais est ce que ñoom mun nañu diligenter la procédure ak l' enquête nécessaire buy tax ñi lekkoon wan noonu loo xam ne moomuñu ko woon ci fond fond Covid 19 bi ñu war ko bokk te dafay am par force nag ah lu ñu war a procédure boobu kan moo ko mën def c' est donc l' état est fort troisième bi mooy l' état est le représentant légal ou légitime du peuple c' à dire ñun association lañ de ñun ak yeneen association yëpp a yem sur le plan juridique ay nit. ku mu neex ñu dugg fa te boo fa duggee seeni règle ñoom nañu respecté règle générale yi nga xam ne moo tënk penc waaye ñun la concerné alors que askan bi juddu nga Sénégal sénégalais la juddoo woo Sénégal teg nga sa tànk ci territoire du Sénégal rek da yi nga xam ne mooy administré cité Sénégal kon état moo mun a agir au nom et pour le compte kon nag il faut que ñu d'accord ne lu tax ñu ne de prime abord ñu ne ñun lan mooy suñu rôle te ñun ñoo fi def 4 mois. c'est parce que c'est une reconnaissance tacite qu'en réalité nous ne sommes pas le maître d'œuvre du projet de transformation systémique. Et d'ailleurs c'est parce que l'a bien compris moo tax ñu ne ñun pour ñu soppi mbir yi nan def ñu ne nañ def outil état boobu pour téye ko c'est important te téye buñ ko ba léegi parce que lenn rek nañ téye mooy l'exécutif central nous nous devons conquérir l'exécutif décentralisé toutes les collectivités locales nous devons conquérir l'Assemblée nationale. donc loolu mooy li jiitu ñu xam ko ne état mooy doxal mbir mi c'est extrêmement important parfois di nga gis militant boo xam ne day jàpp ne impliqué wuñ ko non am na loo xam ne état bu koy doxal te buñ ci waxtaan question bi ñuy wax laajoon sànq mu ne ne kon parti bi naka naka loo xam ne état ko moom ñetteelu question bi mooy kon parti boobu noonu naka lay éviter ba du ñu def waaye projet bu mu porté woon foofu nag laay waxee ne képp ku ñu dénk responsabilité ci ñun mu tàmbali ci man dañoo am benn devoir l'État au sens propre du terme c'est la situation profonde d'une chose la mooy état bu nit la mooy état de santé kon état dafa xóol état dafa sew loolu ñu ko li ñuy noonu wax ñi fi nekkoon dëgg la état dafa am ay rite état dafa am ay règles de fonctionnement yoo xam ne kenn du ci communiquer parfois mais ñun état yi ñu tegal nii c'est des états néocoloniaux c'est-à-dire concept bi nga xam ne wala idée idée de départ bi nga xam ne moo animé woon ci doon teg système boobu daf ko tegoon pour am ñu mu noonu loolu moo tax lu ëpp ci administration boobu nga xam ne mooy bras armé bu boobu boo fa demee. ñu lay jàppee benn sujet bu ñëw mais considéré wuñ ne comme un usager benn citoyen bu ñëw pour am lu muy régler kon dafa am devoir boo xam ne pat dañu ko am ak ñii animé mooy naka ngay fexee ba sous le prétexte que état bi dafa am ay rythme ñii la war a doxee doo dem nag ba ñu yóbbu la ci ngay dox agenda boo xam ne dévoyé nga complètement di taxawu ci projet bi te loolu courage la laaj. ne loolu réflexion bu profonde la rek attention sans nga dénaturer état sans nga bañ a yàq république ak ay ritam naka ngay fexee ba yow doo def erreur yi ñu la defoon gouverner dans la puissance teg ay procédés yoo xam ne yow askan bi da ngay di sori wala poursuivre ay agenda yoo xam ne in sa koom-koomu réew ngay dellu ginnaaw sa culture réew ngay yàq mais sa gëm-gëmu askan ngay ngay salfaañi kon yooyu mooy problématique yoo xam ne moom lañu war a régler dans système ñun nag dañu jàpp ne parti bi ñetti rôle la am te loolu mooy waxtaan bi pour loolu am pour mu mun a fexe ba duñ dévoyer projet bi pour mu fexe ba état bi doxalal ko moom gis-gisam parce que d' accord nañu ci ne léegi état bu outil bu dox ko ñun moom lañ def outil yi pour mën a doxal léegi ñetti rôle nañu am ñun parti parce que premier rôle bi mooy. ñun ñoo war a orienté état bi ci ne gis-gis bii la état bi war a doxal mooy tax may wax état bi mooy maître d'œuvre maître d'ouvrage c'est l'instrument jumtuwaay kese la jumtuwaay kese la boo déggee ñeneen ñi naan état dafa am réalité état dafa fort c'est des gens qui conçoivent l'état comme une finalité il faut sortir de ça il faut considérer l'état comme un instrument jumtuwaay la rek pour am lu ñu war a doxal pour jëriñ réew moo tax am na benn penseur boo xam ne bu ngeen demee seetaan benn documentaire l'Algérie autopsie d'une crise dama ngeen tàmbali l'Algérie autopsie d'une crise crise bi amoon Algérie dans les années 90 guerre civile bi terrorisme tout ça li ngeen gis ne am na ku ci wax benn wax bu am solo ci Mohamed Boudiaf bi nga xam ne dafa exilé woon pendant près de 30 ans 28 ans te bokkoon na si ñu mënee woon guerre d'indépendance d'Algérie mu mujj exilé wu pendant plus de vingt huit ans mujj gi bi crise amee ci dëkk bi pour ñu defar dëkk bi dañu ko dem jënd vingt huit ans en exil au bout de quelques mois mu décédé ñu assassiné ko dans des yoo xam ne historiens yi ku nekk développé nañ ci daf ci am ku ne Goudiaf homme d'état la woon mu taxaw ci lan mooy notion homme d'état mu ne set mu ne suñu dëkk Afrique yi ay homme du pouvoir moo fi am mais pas homme d'état homme d'état mooy koo xam ne li tax a jug état te mooy régler problème askanam administrer cité bi loolu mooy si suba bu xëyee def homme du pouvoir nag mooy koo xam ne naka lay fexee ba préserver pouvoir bi pouvoir bi du daalu Sénégal amul ay homme d'état ci li fi jiitu ñu ngi doon wooyee duñ ko présenté homme d'état amul woon ay homme d'état ay homme du pouvoir la amoon le rôle des dirigeants de PASTEF qui sont aujourd'hui au de l'État, c'est des hommes d'État et non pas des hommes du pouvoir. C'est important. Et puis c'est une nuance qui est là, homme d'État, oui, ñu koy du complot di tapale sous le dos du peuple non ça c'est pas un homme d'État ñu naan ko wax dafa nëbb déedéet ça c'est un homme du pouvoir c'est un homme du pouvoir kon premier rôle bi mooy naka ngay orienter gis-gisu état ci dafa am ñaari phase phase bu njëkk bi romb nañ ko ci ñaareelu phase bi phase bu njëkk bi mooy avant ñu yegg si au pouvoir naka nañu waroon fexe ba teg programme bi nga xam moo war a convaincre Sénégalais yi ñu ko waaw projet bii ñuy wax nga dañ ko war a pare pour en ce sens que mooy projet boobu ñi ko bind mooy Pastef à travers ses te loolu ñun ñoo ko def kon tey bu ñuy wax baatu projet baat boobu ñun ñoo ko moom original c'est original waa Pastef ñoo moom baatu parce projet loolu ñun ñoo ko moom kon suñu gis-gis lañu war a doxal mais après l'arrivée au pouvoir naka la ñuy def ba mettre en œuvre projet bi foofu nag benn mbir rek moo ñu mun a permettre ñu mun ko réussir mooy ce sont les militants de PASTEF qui doivent être au cœur de tout l'appareil de l'État et il faut l'assumer. ñeent moo tax ñeent moo tax loolu moo war a am ñeent bi si mooy projet boobu ñu war a doxal kan moo ko concevoir Bassirou Kébé laaj leen ko ñaata la def ci politique urbanisme ak habitat nan war a def aménagement du territoire ak leneen ak leneen. kenn ci réew mi gënu ko oublier pour mu doxal SNHLM c'est ça la vérité kon ñoom ñoo ko concevoir ñaareel bi mooy ñoom am nañ compétence wala amul compétence bu ñuy wër parti bi ëpp compétence ci Sénégal wala ci Afrique laa wax Pastef lay ñëw Pastef la buujoo compétence Pastef la buujoo kon ba nañu compétence feneen ñi nekk ci parti bi ñoo ko gëm. ñuy xëy suba ci kaw état bi dëgg la wala dëgg ñeenteel bi mooy ñun gëmuñu ko kese waaye gëm bi dafa adossé wu ci sacrifice Ousmane Fall mu ngi ma jàkkaarloo moom. ñaata la teg ci sacrifice ci projet bi la xam nañ ci exil ci emprisonnement ci con ci convocation ci leneen ak leneen. kon ñooñu nga xam ne mbir mi pour mu yegg ko pouvoir jaraloon na leen ñu tayle seen carrière tayle seen alal tayle seen vie tayle seen liberté ñenn ñi seen say tas ñeneen ak ñeneen ñenn ñi sax seen mbokk bàyyi leen ñu ne dof ñooñu tey bu ñu nekkee aux affaires ñoo gën a comprendre enjeu yii ñoom la mbir yi gën a jaral pour réew mi soppeeku kon appel à candidature non appel à candidature man li ma waaj waxoon ne mi ngi fiy toog nag du mu wax turam bu dee météo mun nañu def appel à candidature ak chef de quartier mais leneen lu dul loolu kenn du def appel à ko def parce que lañ ko wax projet bi ne dinañ ko def mais dans les ñaari bi mooy certains postes lañ wax de quartier ak météo amul benn mais leneen lu dul loolu suñuy gis-gis ñeent baal ñoo ko gën a xam ñoo ko gën a mu doxal ngeen baatu nag loolu mooy premier gage pour Pastef nekk kii doxal projet bi projet de transformation systémique waaye nga concevoir ce projet xeex bay bëgg a dee ba expo pouvoir nga dem ko ci beneen nit bu mu la projet boobu gars yi loolu yëpp na maa il faut qu'on assume que qui sera au cœur de l'État dans toute la chaîne pour continuer ce pays léegi nag loolu bu ko Pastef duggee dafa am ay exigence boo xam ne Pastef dafa war a teg boppam première exigence mooy Pastef dafa war a def effort identifier ses compétences les compétences du parti ne se résument pas au bureau politique au mouvement des cadres au mouvement des jeunes et les compétences du parti ne se résument pas au visage connu Ngagne Demba Baro Bassirou Kébé non il y énormément de militants à la base qu'il faut aller chercher identifier pour les mettre au bout de et bu ngeen xamoon le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko ak ministre yi ñu xool yi coono bi ñuy ci jéem a identifier les profils dans le parti di ngeen xam ne ñu ngi ci liggéey boobu mais liggéey boobu dafa war a wéy te dañ ko war a gën a organiser ngeen ko newal te ñu ngi ci foofu man laa bi ma laajtee CV wu coordonnateur départementaux yi bëri ci ay CV en commençant par moi les gens doivent de l'État mais il y a d'autres personnes yoo xamante ne mën nañu gën a yokk seen jàng commençant par moi dañ koy waxtaanee rek si loolu il faut travailler à la formation d'une élite patriotique dans tous les secteurs d'activité. Si nous voulons conserver le pouvoir pour 50 ans, nous devons former des générations de patriotes ñoo xam ne dañ leen di former ci secteur bu xam-xam yi gën a ñoŋ ci àdduna bi ba bu ëllëgee les questions spatiales ci réew mi ki war a toog naan mbirum nucléaire ki war a naan mbirum espace mbirum satellite te am benn responsabilité bu rëy ci réew mi kenn du ko mën a parce que jeune la boo xam ne JPS la jaar ñu formé ko pendant dix ans parti bi faire une formation kenn du réew jàng loolu. c'est un travail sérieux et méthodique qu'il faut faire kon maa ngi ñaan ñii nommé na leen ñu ngi situation mais xam nañ fi ñu jëm te ñu ngi liggéey ci ay perspectives yoo xam ne c'est dans le long terme du rek ba bëgg a nommé rek tey teg pression non. xam nañu liggéey bi ñuy def te liggéey bu sérieux la boo xam ne li ñu bëgg mooy fii ak juróom fukki at fii ak téeméeri at ñiy nekk au cœur de l' état ay sénégalais yu jub nañu doon ay sénégalais yu am.